Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mbokk juliti mbokk talibi yi ñu ngi leen di siyaare jital ci siyaar bi serigne Muntaxa Mbàkke di ñaan mu yagg fi lol te ànd ak ak njabootu Cheikh ahmad Bamba khadim rasoul ñoo ngi fi ci taif ci bisu korité ci atum 2019 ñu fas yéene wan leen li nga xam ni moom lañu ñu fi jëlee mbokki taalibe yi nag di jóge fu nekk ci biir dëkk bi ba fu nekk ci biir senegal di ñëw di teew si ci bis bi ndax ràññee nañ ci ñoo xam jóge nañu Touba ràññee ci ñoo xam jóge nañu Diourbel ràññee ci ñoo xam ni jóge nañu Dakar ñëpp ngir teew si ci bis bi ànd kook ki nga xam ni mooy sëriñ Abdourahmane Mbacké di xalifa sëriñ cheikh ahmadu mbàkke gaynde fatma and ko ak ki nga xam ne moy serigne sëriñ mustapha moustapha Sirin serigne sohno soxna lo di khalifa di ñaan ñu yagg fi lol te and ak binak ak mboolem talibé ah, jullikaay bi sohno nek ci wetu serigne sëriñ soxna lo muy bërepp bi nga fi la serigne abdul Fatta mbàkke nek di ñaan suñu borom mo yok seen lèr te taas nu ci sen barke sel yoy ngeen gis nonu serigne mustapha mbacke mom serigne mbacke soxna lo di dugg si ci jotaay bi di Santo bu baax it njaboot gi nga xamni ñom ñep ñew nañu tew si ci bis bi ñu ragne ci serigne Ousmane mbacke mo serigne Cheikh Gaynde Fatma ragne ci tam ki nga xamni moy serigne Mahmoudan mbacke mo serigne Cheikh Ahmadou mbacke Gaynde Fatma ñu ngi sant ñëpp nag ndax ku leen waaw naka noonu itam ngeen gis kooku di sëriñ Abdourahman Mbakke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke Gaynde Fatma di xalifaam di dugg si noonu ci jataay bi kon ñu xam ne bu yegsee rek ci la imaam di door li nga xam ne mooy julli gi kon ñu teewlu ko mbokki kon bi nga xamé ni liman taxawal na ba mbokki taalibe yëpp ànd ak mom bi mu noppé nak ci la daldi def khutba bi ci arab kon ñu déglu bi nga xamné mom la def ci wolof bu noppé itam nak sëriñ bi dina jotli ay kaddu mu tukkee ci ki nga xam moy mooy sëriñ Baara Mbenn Seck asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen nuyu te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi sëriñ bi mbàkke noo ngi lay ziyaara bu baax a baax di ziyaare mbokk sa bokki bopp yi fi teew yépp ñaan sunu boroom yàggal jotaay bi yokk wér gi ak man gi yëggale naal yépp ba jaay sëriñ bi bokk yi bis yépp lañ war a sant yàlla waaye bisub tey bii da ci rawati bi ñu sunu borom defalee tawfiix nu woor weer weeru ramadaan ñu mënu ko sante may nu nu fekkewaat ko ren ñu di ñuy fàtt fàttali itam muuri koor yi ñi nga xam ci ñi nga xam ne génnee guñ ko na xam ne ci ci la bokk nañ ko génne kenn ku nekk na ko génneel boppam ñaari kilo ak liibar ak képp koo xam ne yaa ko war a dundal maanaam ab dundam yow la war nga génneel ko ko te bañ koo génnee na la soobe rek kiñ koy jox itam mooy ku ko yelloo képp koo xam ne jege na la te yàlloo jurum jërum nga di ko ko jéggil di ko di ko yóbbu bi nak di bisub sant yalla ngir limuy mbegum yonante bi sallallahu alaihi wasallam ak kep ku xeeñtu aw yonam serigne bi wax ne mi ngi len di denk ci bis bi ak ginaaw bis bi tàqoog li ñu leen ci ay jikko ak pas-pas ak wax ak jëf jikko nak di tombu bi serigne bi njëkk tuddu ci denkane bi ñu toll ci jamono joo xam ne jamono jamono ju tawat ay jikko la xam ngeen ne ci jikko la sunu boroom tagge yonente bi sallallahu alayhi sallam moom yonente bi sallallahu alayhi sallam mu wax ne dañ ko yónni itam ngir mu mottali tedd ngay jikkoo innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq loolu itam di firndewu keroog fatxu makka mu jàkkaarloog waa xorees yi nga xam ne ñoo ko génne woon makka tam jekku leen ana lu mu leen wax yaa maxsaru xorees maa tazunnuna anni faa'ilun bikum ana lu ngeen jàpp ne moom laa leen di def ñu di ko xanaa lu baax rek ndax mbokk mu mbokk mu baax nga di doomi mbokk mu baax kon lu baax rek lañuy séentu ci yow lam leen wax mooy izhabu fa antumu tulaxa loolu nag di wane ne jéggale am na taxawaay bu mag ci jikko ju rafet xam ngeen ne Serigne Touba fu ne radiyallahu anhu fu ne ay noonam yóbbu nañ ko fa lu ne itam def nañ ko ko waaye bañ demee ba tële ci moom la mu wax mooy afawtu anil a'da'i kon nu xam ne jikkoo mooy ngën gi wàccaay moom lañu war a def muy sunu wàccaay wu njëkk كم نيكو شاعر بوخه ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب نان يانا واتشاي ولا تار دو ييري ياك دو ييري يي نيو سول رك ديكو واجي دويوت وايي تار دغ دغ موي تارو خام خام اك جافي اك تاخو كي تيغين ليس الفقير من فقد الذهب والفضه inama alfaqiru man faqada al axlaaqa wal adab ki ñu jàpp ne mooy ku ñàkk mooy ku amul alal waaye nee na ki ñàkk dëgg dëgg dëgg mooy ki ñàkk ay jikko mooy ki ñàkk ay teggin mbokk yi lii may jikko ju rafet nag bokk na ca pas-pas bu sell ndax doomu aadama bu li mu gëm mooy feeñ ci ay cëram bu amee pas-pas bu sell jëf yu sell rekk lay jëf di ko wax bu pas-pasam sellut mooy juru jikko yu ñaaw te bu boobaa jëf yu ñaaw rek lay jëf di ko wax xam ngeen ne toll nañ ci jamono ju doy waar jamono joo xam ne lu ne ngay dégg di ko gis te xam ngeen lépp lu sunu borom masa alage aw xeet ñu ngi koy def ngir lan jikko yu yàqu rek lutax nak sunu borom jaarale wunu fam fanu fam jaarale xeetu xeet ñu jitu te lépp lu xeet ñu jitu da def mi ngi am ñing koy def ci jaw sunu jamono ji lolo nak moy rek wa ma kana allahu li yu'azibuhum wa anta fihim wa ma kana allahu mu'azibuhum wa hum yastaghfirun suñ borom da wax yonent bi nekk du la mbugal mukk tang tang nek seen bir yonent bi tu fi waye duma len bugal mukk itam li feeg ñi ngi jéggalu kon nak lool war naa tax nu maase jëm ci tup tup nak jamono yépp la war waye suñu jamono ji da ci rawate kon li bon bu fekkee da bari ba mëne futa ba lépp da ngay bayyi la nga man la ci dess nga diko ko bu ko defee danañu danañu ko far te luñu far ak luñu bindul ñoyam ñaan suñu borom mu jéggal nu dimbalé nu di ñaan itam sunu kilifa yi muy sëriñ Mouhamed ak sëriñ Abdul Fatah sunu borom sotti waame yërmande ak ngërëm ak njëggal ci seen kaw ak mbooleem jullit bi ñu fa bokk nekkal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi sëriñ bi ne mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam nee na di leen gërëm ci sant ci taxawaay bi nga xam ne dégg nga moom ngeen fi taxawee kon nee na loolu moo tax mu di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla mi nga xam ne moo yor ndimbal sëriñ bi yàlla dimbali nu nee na nag xolam sedd na guy yaakaaram itam dolliku na. ndax nee na mu nek fi ak mu ñak fe nek gannaaw xamna ne bu ne si kanam de nga ngeen ne si gannaaw muy doom yak rak yi nee na xolam sedd na guy xalam itam de nga dal na yaakaaram itam doliku na kon ne mi ngi ñaanal rak yi di ñaanal doom yi di ñaanal talib yi yalla defal leen jam te yalla doli no dimbali ba suñu ngeum gëna yok yokku bi nee na bi nga xam moy dekk dëkkub Modou Moussa di mamam sëriñ Cheikh nekkoon fi ba jóge fi sëriñ Mbacke Soxna Lo ne fi ba jóge fi sëñ ab sëñ euh, Abdou fi ba jóge fi mu wutu leen nee na li taxoon borom da nga sanc ko mooy jaamu yàlla ak dib taalibe nee na bi nga xam ne itam nekk ña fi jiitu nekkoon nañ fi lañu doon tere di ko balu moom lay tere moom lay balu nee na nag yëg na ne ñi nga xam ne da nga ñu ngi def loo xam ne da nga du noonu. yëg na ne de nga de eh, na ne de nga mi ngi wàññiku wàññiku bu baax di tamu mu it moy kenn ku nek da nga xam nga ne lu bon baaxut nga di ko sa morom la ca doli ko moy autorité bi nga xana ñi ngi fi neena mi ngi len di sant mi ngi len di gërëm ndax neena ñi ngi dimbali nit ñi ci yoon ngi len di xamal de nga lo xam xamuñu ko won kon nak neena yeen nga xana de nga yeen la fi autorité bi andi eh, sant na len bu baax gërëm na len bu baax ndax yéen a ngi teete nit ñi yéen a ngi leen di diggal li ñu war a def ci wàllu saay bi sëñ Moustapha bi nga xam ne itam yàlla dogal na mooy imam bi nee na sant na ko gërëm na ko ndax li man lépp mu ngi koy def ci wàllu lislaam mu ngi wootee daje mu ngi leen digle te nee na rek moom mooy ndamam loolu rek itam da nga la bëgg kon mu ngi leen di dénk kenn ku fi nekk ku ne xam ne sa maama la fendi wala sa baay ak taalibe di nga ci du ci nga sax nee na ngeen gën a gëm gën a maandu gën a rafetal wax yi dana déggoo itam di yigleente di baalante di dimbalente li ngeen a mën lépp te yàlla tax nee na suñu ko defee suñu fekkee sëñ Modou Moustapha fa nu bëgg dana nu fa dugal kon nag mbooloo mi nu ñëpp noo ko dégg kenn ku nekk da ko war a digal sa bopp war koo digal sa morom kon bu nu ko sëriñ bi digalee te na wax ne noo joxoon suñu bopp sëriñ bi loola faw da nga nu war cee góorgóorlu war koo dox war koo def kon sëriñ bi nee na mi ngi sant daal mi ngi gërëm ñëpp. yàlla nu yàlla boole dimbali moom mi nga xam ne itam da nga mooy ndimbal kon loolu la waxoon ne da nañ leen ko jottali jottali nañ leen ko yàlla nu yàlla jàmmal yàlla may jàmm bi jaay sidul wujjóot kon fu waay toll mu tallal sëriñ bi ñaan nu dellu ci yitte yi jërë ngeen jëf mbokk yi kon li mooy julli korité fi ci taif Mbacké mu yemook juróomi fan ci weeru juin ci atum 2019 ñuy ñaan suñ boroom mu may ñu ñu fekk at yu bare bare bare bare di ñaan suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk kanam yàlla yàggal leen fi te may leen wér na ngeen Roma.